jàngeen jëf yéene kay tey politique ak wàllu yoon la ñu xëyee réew mi quotidien fësal nataalub Idrissa Seck ci xëtam bu njëkk di sampab laaj ba xam njiital parti réew mi dina doon juróomeelu président sunu naataango yi di xam ne ni démb la idi daa di fësal ab programme am dupeeko 1 3 15 45 moo tax yéene kay groupe promo consulting bi dupeeko la idi formula mooy xam ne ni moom idi dugg na bu baax ci campagne bi bu gan ngay dani duggagu ca ndax ci la tribune yéene kay njiital gëm sa bopp moom ma ngay ŋàññi bu baax li mu duppee conspiration gannaaw ba ñu ko rëkkalee ci parrainage bi ci yéenekaay bi Bougane ngay Dany di xam ne ni dañ ko jox ay carte d'identité yi nga xamante ne juróom-ñaari araf la am wuute ak juróom-ñeenti araf yi nga xamante ne ñoom la carte CEDEAO yi di am waaye borom gëm sa bopp ne yëf yi du ca yam ki ci yamalul yëf kay mooy Pierre Goudiaby Atepa moom it gannaaw ba ñu ko rëkkalee ci yéenekaay bi di la tribune moo ngi ñuy xamal ni dafa saisir rek Cour waaye tamit ñii di waa Sénat ci fichier boobu ak anam ñu ko defee bi conseil constitutionnel defee vérification yi Dakar Times ne dëppoo ak yoon ndax yéenekaay bi daf ñuy xamal tey ji ni waa daaf ci boppam ñoo daal di tegal ab ndëggu sërëx conseil constitutionnel ci wàllu vérification parrainage bi ndax fichier électoral bi nga xamante ne dañ ko yónnee juróom-ñaari sages yi ab fichier électoral numérique la te loolee suñu naataango yi duñu xamal ni dëppoo ak yoon ndax vérification parrainage moom ci format papier kese lañ ko war a defee maître Madické Niang moom def na ba matal moo tax ci waxtaan bi mu sekk ak Vox Populi avocat bi di ñu xamal ni jël na ay risques yu bëri waaye nee ne dara waralu ko lu dul fexe ba wëyal li nga xamante ne mooy liggéey maître Abdoulaye Wade ndax njiital coalition Madické 2019 dafa jàpp ni élection mënut a am te kenn ku yor héritage maître Abdoulaye Wade mënu ca bokk moom député bi yamu ca àdduna tamit ci mbirum Karim Wade mu jàpp ni dina leeral askanub Sénégal bu fekkante ne Karim Wade nangu na ko xalifa Sall nangul ñu ko li mu doon sàkku L'As Quotidien moo ñuy xamal ni Cour suprême moom dafa daal di gàntal maire bu Ndakaaru bu woon ci pourvoi am ci coowal caisse d'avance moo tax suñu naataangoo jàpp ni xalifa Sall moom dañu ko rek disqualifié ci présidentielle bi Vox Populi ne ko déet yëf yi jeexagul ndax Khalifa Sall dese na beneen carte te suñu naataangoo yi jàpp ni du dara lu dul rabat d'arrêt waaye ci biir yéenekaay bi maître Babacar Cissé avocat état jàpp ni maire bu Ndakaar bu woon moom bokkatul ci course bi maître Seydou du di ko tontu ne mukk xalifa kay ba tey mën na nekk candidat mat sëkk Sud Quotidien mooy xamal ni ki démb laataa ñuy débuté Khalifa Sall ca Cour suprême takk der yi ñoo wër kër ga daanaka mbedd bi yëpp foo tourné fekk leen fa Walf Quotidien di xam ne tey jii ni yëf leeragul dara ngir xalifa Sall ndax jamono ji tembe danu jàpp ni socialiste bi moom mu ngi ci diggante ñaari chaise Malick gàkku ci jafe-jafe yu tar la nekkee woon ba mu wàccee ci aéroport international Blaise Diagne source a moo yëgle xibaar bi la tey jii ndax njiital grand parti ba mu wàccee ca vol Air France dañu ko daal di fuyee càmbar ko daal di xool lépp li mu yoroon sunu naataango yi di xam ne ni kon du dara lu dul Dakar mi nga xamante ne mooy ut ay chèque parisien ci opposant bi Lamine Dabo la yoon ut ba daal di koy teg loxo damono di tembe moo nga ca chambre criminelle libération moo ni xëy xamle moo tax mu jàpp ni kon rebondissement la ci coowal double assassinat bi amoon ca rue Carnot mu jàpp ni assassin bi ci boppam lu nu koy tuumal du dara lu dul li mu drogué ak sàkku ñi nga xamante ne ñoom la defoon jëfu ñaawteef gogee Liverpool le Manchester City def jëf ju ñaaw démb ci choc bi ñeel ñaar fukk ak benn lu bëccëgu Premier League stade yéenekaay dañu xamal ni Citizen yi daal di nañuy relancer course ngir raayop champion d'Angleterre bi ndax ndam li ñu am démb ci ñooñu Sadio Mané yi benn bal ci ñaar looloo tax Red Devils yi daal di ñàkk li nga xamante ne mooy seen invincibilité ki ñàkkoon kombaawam digganteewam ak Bombardier di ko méttit lu ba tey mooy Rocky Balboa mbër bi moom li muy rëccu mooy li mu ñàkk warmal li nga xamante ne mooy xarfa xuufa ba B50 am do mbuur daal di koy toroxal la